Touré laa tudd. nekk nekk Thiès si arab yi dem Mbour Thiès. defuñu grève grève yi benn part la si syndicat yi mhm. mais li si ëpp moom defuñu grève parce que quatorze syndicats bu si si demee grève le reste demuñu grève kon man je me dis ni que presque à 30 pour cent la grève bi. non ñun bokkuñu si. non parce que tey jii ñi nga xam ni ñoom ñoom ñoo décrété grève bi muy transporteurs yi nga xam ni ñoom ñoo nekk biir garage ak yooyu. toujours seen plateforme revendicative ñun dañ ci nekk point bu am importance bu ñu waxee dañ ñu fi jëlee nañ ñu fi jëlee te yaakaar naa kuy sërëm sa wujju du set xam nga tey nit ki mënoo di ko xeex ba pare toujours yaa ngi koy gàllankoor pour euh, noo arrêté activité ba pare nga retourné dikk ne ma jàppale xam nga loolu du lu raisonnable quoi mais bu nekkoon ñoom chaque jour que jëfee ci lépp lu ñu nekk ñu xam ni transport ñëpp a ko bokk te ñun ñëpp ay sénégalais lañu ay chauffeur lañu ñuy dikk di waxtaan ak ñun comme ñun bu ñu nekkee concurrent ay concurrent déloyal yu nekk ak ñoom xam nga di am tiraillement suñu digganteeg ñoom maanaam ñoom ñu nekk côté ñu nekk côté bi mais ñun ñëpp ay chauffeur lañu oto la ñuy dawal permis la ñuy yor comme ñoom ñuy dikk lépp lu ñuy def dikk waxtaan ñu ay eh, gars yi ñu kat ñoo bokk Sénégal état teg nañu lii wala lii wala lii wala laa ñu bokk si waxtaan kon tey ji ñoom bu ñu taxee dañuy grève ñun dinañ si dem ànd ak ñoom quoi mais ñoom toujours seen plateforme revendicative ñun dañ ñuy xeex. ah non le problème en le problème en est que mooy li ñuy xeexe mooy ñun ñu def transport te euh, le monde évolue dañoo nekk ci évolution euh, la amoon autant muy garage cette place Ndiaga Ndiaye bus yooyu d'accord ba léegi mu ngi fi mais tamit jamono moo dox ba lii am tey te li am tey nii ñun xëccaluñ ko suñu bopp mais jamono moo dem ba laaj ko au début ay benn benn oto la woon yoo ko ñoo ko daan def xam nga garage yi sax amul woon comme exemple man moo koy door a commencer dañ daan xëyee Thiès di wër jaar côté Air France mairie buntu garage di for ay client benn benn daal di taal daal di dem booba garage sax amul mais nag muy dem jeunes yi di si gën a gis seen bopp di si gën a gis seen bopp ba nga ñëw Eiffage la Dior dem Eureka dem Shell yooyu yëpp ñu def ko ay garage yoo xam ni gars yi fa la ñuy nekk di yeb ay client di yóbbu client yi tamit di dem ba si biir clientèle bi bariwul woon mais léegi macha allah parce que li ko waral mooy dañ fi gis seen bopp waaw gis seen bopp mooy bu ñu dikkee confortabilité sécurité non waaw d'accord légaluñu mais le mot légal boobu nañ ko bàyyee wax xam nga tey jii ki légalul man je me dis que mooy ki nga xam ni dañ ko teg ay charte ne ko lii ngay fay mu ni bëgguma ko kooku bu la neexee nga ni légalul mais ñun tey exemple licence bi agrément bi ngay wut ak tous les pièces y compris boo ko boolee lépp matul 100000 francs ñun nous sommes prêts à payer 200000 francs pour ñu am pièces yooyu ñoom li ñuy dossiers yi ngay fournir pour dugg biir gare routière ñun bu ñu ko multiplier par 3 ñu fay ko ñun bu ñu ko multiplié par trois non depuis ñun ñu commencé liggéey ba léegi lii moo fi nekk jafe-jafe bi moo fi nekk waaw léegi sa xaw na tane parce que dañ dem ba xam ne ñun si dëkk bi dañu dëkk waaw la ko ñëpp grève bu ñu maanaam 30 pour cent ñoo grève 30 pour cent mais 70 pour cent bi ñu ngi liggéey ba si biir transporteurs yi ah yaa ngi gis njaga njaay yi ñuy dem aftu la majeure partie ñu ngi liggéey parti bari ñu ngi liggéey mais ñëpp grève ñu de 30 pour cent ñoo grève parce que parmi les quatre les treize euh, syndicats neuf yi ñu ngi liggéey waaw neuf fi ñu ngi leen neuf syndicats yi ñu ngi liggéey. non ñun nous ne sommes pas partie de la grève. non duñ mës a grève si pour duñ mës a grève loolu duñ la ko wax. parce que tey nit bu nekkee si dëkk dëkk si dëkk di contribuer si biir dëkk bi bis bu dee bu am lu ko naqari. mais boobaa dana taxaw ñaxtu waaw mais ñaxtu nag ak. Euh, beneen sens pas comme taxaw si tali bi di sànni ay xeer ak affaire yooyu ñun nous sommes très ñu tudde war ngay de nous ne sommes pas indisciplinés nous sommes très disciplinés bu ñuy grève d'une autre façon la ñuy la ñuy gréver mais pas comme transport yi di gréver yàqote jàmbur këpp huile dóor ay xeer non non non ñun ñu doxe noonu